peut un sujet. on les attend toujours. Mais vous les aurez peut-être jamais, parce qu'il y a des preuves que vous ne pouvez pas avoir. Il y a des preuves que vous ne pouvez pas avoir. Non def benn zapping accident spectaculaire bu Cheikh Amar Bim am yoonu Touba bi Diourbel Yann ngi ñaan yàlla ci jóge ak jàmm waaye dañoo gis oto boo xam Range Rover ku ñu Range Rover mais heureusement kenn n'y ci il a perdu connaissance heureusement Cheikh Bass Abdou intervention ambulance bi hôpital Il hôpital Touba hôpital Diourbel fa ba mu Il que Il a wax accident yi war nañ ci wax accident yi li maanaam njuumte nit ay nit yoo xam ne bu ñu yor seen oto nu la neex la ñuy dawalee. wax nañ ne chauffeur bi moom nee na dafa doon changer dafa amoon lu mu doon soppi ci frein oto bi benn pono bi ni ñu koy monter ni ñu koy yëgalee baaxul ah lii doy na waar ci kilifa kilifa bu mel ne Cheikh Amar. boo amee chauffeur chauffeur bi dafa war a nekk mécanicien dafa war a xam oto dafa war a xam pono bu baax pono bu baaxul xamuñu ndax dafa mbëkkaat beneen oto waaye dafa ne oto bi da doon wëndeelu da en tout cas ñu ngi koy ñaanal mu jóge ci jàmm ak salaam waaye lii dafa war a tax nag ñu wax ci accident yi ndax Zoula tamit ñàkkoon nañ ko fi waruñu rek xaar ba ku siiw célébrité am accident ñu ci doog a wax accident yi ñu ngi rey te li ci rey yëpp mooy chauffeur boo waxee ñu ne yàlla mooy rey nu la neex la ñuy dawale xalaas wax ci tës wax ci TFM da leen gën ay émission di ci wax loolu moo mën tax nit ñi mucc ci mag yi bisu mag yi sax ñu ngi accidenté waaye mooy tane bu ñu tuddee foofu ñu wax ci waa lii Ballago Seck ak Pape Diouf di Sénégal en tout cas ñoom ñoo ak mbalax bi ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom ñoo téye mbalax bi seen seen loxo Pape Diouf dem Saraba le 24 wàcce ko demaat Saraba la 31. Wally Seck demoon fi Pikine sama gox waaye ba mu demee HLM man mere naa leen ndax tiim Wally ñu bari nañ ne Mister Shake dafa faramare la dafa faral Wally Seck waaye nga ñëw ba HLM sama gox invité wuloo Mister Shake ah loolu erreur la bu mag yu jeen invité wu Wally Seck Shake bi nga xam ne dafa woy Wally Seck Wally number one way bu rëy waaye sa kontaan ci gërëm ci Mister Shake nekk sa way bi neex na Mister bi nga xam ne dafa génn way London bindal ko Wally Seck jox ko papa de ko joxal ma Wally Seck dama bëgg mu woy way bi yéene ko kon yow boo ñëw sama gox boo invité wooloo ma ma woyal la way bi nga xam ne dama la ko way ma way ko live ma liggéey ak yow defoo ko ah xëy na dañu amuloon jot waaye xam naa ne Pape Diouf moom bu ñëwee HLM insha allah te dina ñëw HLM man gëm naa ne Pape Diouf dina ma invité ndax koo xam ne da nga waxante ak moom tuuti rek mu woyal sa jabar joyeux anniversaire. soxna Diagne naaru mister Jack lo dund doyul. way bu ri way bu euh, wër aduna c'est vrai que wali sek général généreux mais la générosité de Pape Diouf est légendaire mom dafa généreux ba généreux ci paramaré gis nañ ko fa nii muy baat rek Keba Seck Keba fu mu lu bax rek. lay wax ci Pape Diouf te battre Pape Diouf battre 10 000 mon du battre 5 000 C'est un battre soutenu rythmé Pape Diouf mën nañu le Lucky du battre. mën nañu wax le Lucky du battre il tire plus vite que son nom waaw ndax dafa baax. Ah, Pape Diouf

ak gouverneur dañoo luubal 94 milliards Bassirou Diomaye fay nee na preuve doo leen ko mës a am. en fait de preuve maintenant. est un sujet. Ces preuves, on les attend toujours. Mais vous ne les aurez peut-être jamais, parce qu'il y a des preuves que vous ne pouvez pas avoir. firnde yi wane ne Mamour Diallo dafa jël 94 milliards. ils ko mës a wane. waaye ñii bëgg puisqu'ils sont identifiés dans Mais qu'en est-il des, preuves dont vous parliez Parce qu'aussi Ousmane Sonko nous avait fait savoir qu'il détenait euh, des preuves et qu'il allait peut-être les mettre à la disposition de, la presse et de la justice, mais euh, la prochaine, la, sortie suivante, il est venu nous parler du fer de la mais Certains y ont vu une manière détournée de noyer le poisson pour en sortir un autre. Mais vous ne les aurez peut-être jamais, parce qu'il y a des preuves que vous ne pouvez pas avoir. ba pare la vous attendez cette plainte. la plainte en espèce, mhm. si elle est elle est déposée elle est déposée par Mamour Diallo qui peut se sentir diffamé parce qu'accusé à tort de faits graves. si mhm. on vous accuse Mamadou de d'avoir détourné ou de contribuer à un détournement à hauteur de 94 milliards du, Sénégal. Mhm. Toute la presse en parle. Ne serait-ce que pour l'honorabilité de sa famille et pour son honneur personnel, on doit pouvoir quand même se laver de, de, de ça. Quand nous savons que nous avons du yon, quand maman, nous avons porter plainte. Quand maman dit nous porter plainte, vous faites qu'elle n'aille, vous faites qu'elle n'aille, maman de faire Ah, l'idole de